moo fi gënoon a tabe fa tabeem doon gën a feeñ itam nag mooy weeru koor rawatina fukki fan yu mujj ya dina tabe ba raw ngelaw ngelaw bi nga xam ne day upp di dem rek mu ne moom da doon tabe ba raw ngelaw kon loolu benn buntu la bu borom bi subhanahu wa taala ubbi foofu ba loolu jàllee mu faratal aj mu ne kon at mi jullit yi wuute bokkuñu ay gox dañu war a daje daje boobu wonale leen xame ak ku nekk jël ca moromam te bu ñu dajee ñu yëg ne kenn nekkul tumarante ndaxte lépp lu ñuy def ñoo ko bokk foo mun a jóge bu ñu dajee makkatal mukarrama kii nodd bu noddee nga yëg ne lii day la ñuy wax sama réew kii liqaam bu liqaamee nga yëg ne nii day lañ koy defee sama réew bu jullee sëlmal nga yëg ne lii dong de la ñuy def sama réew doo gis lenn lu wuute ñépp dal di mbokkoo xanaa lay wuute mooy melo yaram ya ak jikko ya loolu day mooy nekk li nga xam ne day dal di wuute te loolu yóbbee ñu itam nga xam dëgg-dëgg borom bi subhanahu wa taala kàttanam ak li mu sàkk mu dal di wuute loolu yóbbee ñu ci ragal borom bi subhanahu wa taala yóbbee ñu ci farlu yóbbee ñu itam fexe ngir xamante ndaxte bokk jullit daje naag yeneen bokk jullit ñu war a bokk seet seeni jafe-jafe seeni bëgg-bëgg seeni manqué-manqué ku ci nekk bu delloo ci goxam fexe nu loolu nu mu amee nu mu sottee gannaaw bi juróomi ponk yooyu matee ñu dal di ci tegaat nag li koy sàmm mooy aljihaad mooy nangoo dee ci yoonu yàlla nangoo joxe ci yoonu yàlla nangoo sonn ci yoonu yàlla nekk jihaad boo xam ne nit dina tàmbalee ci boppam jihaad ak bakkanam be moom ko dal di ci toftale ay waajuram dal di nag jëm ci lii nga xam ne mooy sàmm desub bakkan ak desub jaamu borom bi subhanahu wa taala moo taxoon am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demaa ñëw jaayanteeg yow ci gàddaay ak jihaad jóge fa ma dëkk topp la fas yéene topp la ak xeex ci yoonu yàlla nag te yàlla dong nag laa bëgg mu fay mag yool yonent bi ne ko ndax say waajur a ngi dund kenn ci ñoom mu ngi dund walla mu ne ñoom ñaar ñépp ñu ngi dund alhamdulillah mu ne te nga ne yool dong moo la génni bëgg yool dong mu ne waaw mu ne dellul ca waajur ya liggéeyal leen yoola nga fa dellul ca waajur ya liggéeyal leen yoola nga fa kon ñu gis jihaad am na solo lool mun a nekk shahid faatu ci yoonu yàlla waaye bu ñu nemmeekoo ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi sallam am na beneen boor bu mu ko walbati ngir xiwal yaatu maanaa demal jihaat yi ci ay waajur jihaat ci waajur nag buñ ko waxee mooy nga mun a toggoo seen jafe-jafe nga mun a faj seen bëgg-bëgg nga mun a ànd ak yar ak teggiin nga mun leen a noppal te nga xër ci ñaanal leen ni ñu la yaree woon ba nga nekkee xale qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ey borom bi subhanahu wa taala yërëmal ma leen ni ñu ma yërëmee woon ba ma nekkee gone rawatina waajur bu jigéen moo tax am na ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw yaakaar nga ne kan moo gën a yey ma rafetal jëme ci moom mu ne ko sa yaay mu ne ko gannaaw ga kan mu ne sa yaay gannaaw ga kan mu ne sa yaay bi muy ñetti yoon mu ne gannaaw ga mu ne sa papa kon loolu itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax léeg-léeg papa mun a fajal boppam waaye yaay du ko man kon loolu dañu war a takkaayu liggéeyal leen ba borom bi subhana wa taala ne jaamu ma rek waajur la ci teg tegu ci kenn te ñun nag ci jamono gis nañ ne beddi nañu waajur indi keneen dal di teg loolu nag njuumte la loolu fitna la munoo am ku gën yaay ak bàyyi donte ay yéeféer lañu dañu laa wax ne na nga leen respecté dañu laa wax ne na nga leen liggéeyal dañu laa wax ne na nga leen dimbale dañu wax na nga topp seen ndigal feeg wuutewul li la sa diine di sant feeg woowuñu la ci li la sa diine di tere wa qada rabbuka an la taabuduu illa iyah wa bilwalidayni ihsana borom bi subhanahu wa taala day digle na bul jaamu kenn nag kudul borom bi waaye waajur ah rafetalal jëme ci moom yëkkatib kàddu ci kàddoom sax dañ koo tere wala wax kàddu goo xam ne lañ ciy dégg mooy doyadal dañ koo tere wala taqul lahuma uf loolu rek mu ne bu leen ko wax ñu dal di woore nga ne capa bi iyaaka summa iyaaka déedéet du noonu coomeer bi dañu bari waxte lakkale aa du noonu kon yooyu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax bu baax a baax lañ ci war a bàyyi xel moo taxoon yonente bi nañu toskare na kooku mooy kan mu ne ku bokk ak waajuram di dund te jëful ca ñoom lu ko borom bi subhanahu wa taala di gërëmee ba mu dugg aljanna mu ne kooku toskare na kuy dëkk ak sa waajur rek buntu aljanna bu ubbeeku la kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala jàppandal ba ñu mun leen a jëfal mu ne itam la ca tegu mooy azan ñu dal di faratal azan faratal azan nag am na qissa qissa boobu mooy am ku gént gis ab góor mu ne ko man day dama bëggoon nga jox ma jóolooli mooy li chrétien yi di dóor mu ne ko loo koy defe mu ne dama ciy woote ngir julli mu ne ko tey nga ñëw nga jàngal la lu ko gën mu ne ko ah kay mu jàngal ko noot mu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko jàngal ko bilaal ndaxte ku leeru kàddu la ku koweb kàddu la kon jàngal ko ko kon wax ja ñuy wax ci beneen xadis xadis mawdu xadis bu ñu tappa tappafale rek waaye jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi muy waxee ne siinu bilaal shiinun inda allah ndaxte ashhadu ñoom ñu ne bilal mënu koon asadu la doon wax yonent bi ne leen bàyyi leen bilal siinam boobu bu wow boobu siin bu tooy la ca yàlla loolu fen la nekkul xadis bu wér xadis bi wér mooy ka géntoon yonent bi ne ko bul nodd jàngali ko bilal ndaxte kàddoom gu rafet ak kàddoom gu kowe kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toujours la gën te gën a baax loolu lay dal di tànn kon bilal lañu ko tànnee mooy kàddoom kon kaddu ga bu amul sikk dañuy bàyyee ka nga xam ne moo gént mu dal di nodd kon loolu moo doon xissa bi nga xam ne itam mooy xissab nodd nodd nag ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn la woon bu waxtu wi jotee benn nodd bu waxtu wi jotee nodd googu dong nag mooy yóbbaale doomu aadama nga déggu ko noppi di wax la muy wax bu paree nga ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al wasila baat bu mu wax nga wax ko ludul hayya ñeenti hayya yi bu mu ci wax rek dangay wax ne la hawla wala quwata illa billah ñu dem ba ci jamono ñu yokkaat ci noddu fajar suba bi muy ñaari nodd ñu demaat ba ci kanam yokk bu ajjuma am ñu ne ci jamono Othman am ñu ne ci jamono Umar ibn al-Khattab te am na xissa ci jamono Umar ibn al-Khattab ndaxte Othman ibn Affan radiyallahu anhu moo tardé ñu daal di nodd Umar radiyallahu anhu di xutba Ousmane daal di dugg si Umar daal di ko xool ne ko ba ci yow ba ci yow yaani yaa ngi sàggan ba ñuy xutba ngay soog a ñëw ci jàkk ba ci yow mu ne ko ba ma déggee noddu gi rek maa nga woon ca tool ya dégg ko rek ma bàyyi lépp lu ma doon def rek jubal kër gi jàpp dong laa def dal di teew si si jàkk ji jàpp dong laa def teew si si jàkk ji umar bnul xataab radiallahu anhu mu ne mu xaalafatun uxra mu ne mu defa nga beneen wuute boo xam ne ku mel ni yow waru koo def xanaa yëgoo ne ajjuma dañ koy sangul kon nag mu ne gis naa ne gannaaw nit ñaa ngi ca àll ba nañuy nodd nodd bu leen di won ne zawal jot na ñu mun a waaj ñëw ngir fekkee nodd bi nga xam ne mooy wone duggub imaam bépp nodd bi dul bii nag bida ñetti nodd timis yeeg ñetti nodd bu imaam toogee ci min barak nodd yu bari yu bari yi nga xam ne ay quatre heures du matin ak kulluha bidam du noseb islam abadan islam toujours nosem lu rafet lay doon du nekk mukk loo xam ne day safaanoo ak nekkinu doomu aadama rawatina nag ñiy nodd ba pare teg ay bande ñu ne ay alquran muxaalafa bu ñu ci yaakaaree yool it yool du ci génnee ndaxte da ngay fitnaal doomu aadama yi quatre heures du matin muy jàng yaa ngi bugg a nelew munatoo nelew amaan na moom taxawoon na di jaamu borom bi subhanahu wa taala bëgg naa for bët amaan na dafa feebaroon ba guddi gi sori mu bugg a for bët amaan na liggéeyam day guddi mu bugg a for bët mbir yu baree bari la mu des ci loolu rek loolu du sharia ak itam ne dangay def zikri ci rajo du sharia abadan ndaxte dàquwante na nekk na bidaa ñaari yoon benn bi mooy daje mboolo di def ab zikr ma anzala allahu biha min sultan ñaareel ba gistal la nekkatul jaamu yàlla gistal la yow yaa ngi zikr ci sa biir jàkka mais loo ko defee rajo di ko yëgal ñeneen ñi bu doon nodd nga yëgal leen nañu ñëw ndaxte waxtu wi jot na naam benn nodd mu dal di jeex waaye zikri ci rajo hadi bida muxaalafa yool du ci génnee ndaxte wuute nga ak doxalinu yonentu bi sal allah sallam dugal nga ko itam ci njistal ndaxte gisuma foo koy classé lu dul njistal njistal rek nga koy dal di classé kon loolu doomu aadama da ci war a bàyyi xel bu baax a baax bu baax nga ci war a bàyyi xel bul jortu mukk ne yool a ngi ci li ñu koy wone mooy asar abdullahi ibnu masudin radiallahu anhu benn nit ñëw ci ñoom mu ne ah man day romb naa lu doy waar de mu ne ko loo romb mu ne jàkka ja daal romb naa fa asi mboolo am na kenn ko toog mu ne leen tudd leen yàlla nangam yoon ñu def ko def sàbbaal leen nangamu yoon ñu def ko mu ne loo leen wax mu ne waxuma leen dara de dama waxoon ba ñëw jël ci yow xelaat waxuma leen dara mu ne leen nañu dem mu ñëw ne leen yéen ñii lu leen jot aka gaaw yére yonentu bi sallallahu alayhi wasallam rappagul bi parce que démb rek la fi jóge yére yi rappaguñu këram yaa ngi nii dara rappagu fi ngeen fi indi bidaa bu mu xamuloon moom bu mu jàngalewuloon mu ne leen teel na de ragal leen yàlla dellu leen ci li yonentu bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon moo tax ñuy nettali umar ibnu alxataab radiallahu an ci ndëgër laayam moom ba mu jëlee jiite jullit yi bu nit ñi sëlmalee ña fa doon daje di sos yeneen ñu ne dañuy jaamu borom bi subhanahu wa taala ab yar la leen génnee ci jàkk bi mu ne leen yëg leen ne asamaan bii laa tumtiru zahaban wala fidda asamaan du taw or ak xaalis dem leen liggéey fi ngay liggéey mun nga faa zikr fi ngay liggéey rafetalal liggéey bi dal di ko sellal la nga fay am fas yéene dundal ko njaboot gi loolu zikr la borom bi subhanahu wa taala ba mu nee dajaleen dal di julli ba julli bi pare lan la ñu waxoon fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ard sëlmal nañu mu ne tasaaro leen ci suuf bu dee ab biti nga yore woon dellu dellu ca bu dee ab sac nga tegoon di ko gàddu loo doon def rek dellu ci mais ci dellu in boobu nag dellu sax di tudd borom bi subhanahu wa taala loolu du safaanoo tudd borom bi subhanahu wa taala waaye toog nga ne da ngay tudd borom bi subhanahu wa taala lu jaxasoo ci koñ bi yawa comment fi fay lu fa jaxasoo yawa boo seete na fekk sa loxoo ngi ci wala sa tànka ngi ci wala sa kàddoo ngi ci kon yow bokkatoo ci julli di sax fof ndaxte yonent bi ba muy melale julli man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ñi nga xam ne julli di mucc nañu ci sa làmmeñ ak ci sa loxo kon boo fanaanoon ca jàkka ba yendu fa di zikri itam zikri boobu lam lay yokk mooy bu'dan anillah mooy gën a sori borom bi subhanahu wa taala ndaxte ci anamu bidaa nga koy defee ci pas-pasu bida nga koy defee te yow sàmmwante woo ak teggi yi nga xam ne mooy tax nga des di nekk jullit mooy tax nga des di nekk iman bépp façon jaamu yàlla boo xam ne jëleewuñ ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama bàkkaar nga ciy am doo am ci yoon abadan abadan daiman bàkkaar laay doon waaye yool moom lu ci jóge ci waxu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko jëlee man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd bépp jëf boo jëf rek te ndigal ba bàyyeekowul fii mu ne ci moom mu ne na nga xam ne borom bi subhanahu wa taala amu ci soxla fu mu mun a jóge nag kooku mu jóge nag nu la neex tuddee ko ko bu la neexee tuddee ko mooy sangub nit ñi bu la neexee neel mooy xutbu bi bu la neexee neel mooy xawsu bi lu la neex daal tuddee ko waaye ab bidaa la bidaa laay dal di doon coono rek laay dal di doon te kooku ngay joxoñ nag su fekkee ànd nag yow ca loola moo la ko sant nekk na taaxuut nekk na taaxuut li leen di teqale ëllëg mooy nga ne borom bi subhanahu wa taala indil ma ko ci ron safara jahannama ma joggi ci koom ah la ñu waxoon borom bi subhanahu wa taala won ñu ñi ñu réeraloon arinal la zayni adallana won ñu ñi ñu réeraloon luñ leen di def ñu def leen ci suñu ron tànk yi ñeneen ñi borom bi subhanahu wa taala laaj leen lu xew coono bi métti na jooy yi métti nañu naa borom bi subhanahu wa taala li xew daal mooy lenn inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluna tariq ah ñun day sang yi rek la ñu toppoon de ñun de ñi ñu yaakaar ñu màgg la rek la ñu toppoon ñu dévier ñu génnee ñu ci islam dugal ñu ci li ñu tëraloon ak seen i nose loolu de moo ñu moo ñu jàppoon waaye li ñu bëgg rek yow borom bi subhanahu wa taala defal ñu ko rek mooy bokkuñu ñun ñëpp nga delloo ñu aduna rek ba ñu am lu ñu wax ñii ne leen woon na nekkee munu leen dara nekkee wax bu bari rek laa nekkoon munu leen dara borom bi subhanahu wa taala mu ne ah déet loolu wéy na di wàccewu ma woon lu toll ni quranul karim yónni wu ma woon ku toll ni muhammadun sallallahu alayhi wa sallam jàppanduma la woon ab waxtu boo xam ne waaraatekat yaa ngi lay gindi di la leeralal loolu yem nga dal di lànk ba tey nga naan dellu dellu amatul de fii moom imma aljanna wa nnaar waliyadu billah yal nañu yàlla may aljanna te musal ñu safara kon fi ñuy tënkee mu ne beneen ndigal dal di ñëw mooy al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ku ko dul def baaxoo ku ko dul def rek baaxoo mbaaxaay ba borom ba subhana wa taala waxoon mu ngi ci ñaar yii mooy na nga digle njekk na nga tere safar kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah xayriyatul ummati fi hadihi thalath kon baaxu xeet wi mu ngi ci ñett yii mooy digle lu baax tere safaan ba gëm borom bi subhanahu wa taala yonent bi ne ñu ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adafu l iman mu ne ku gis ci yéen lu dul noona na ko dindee loxo loxo nag ñaara ko mun a dindee mooy fi nga yelif wala ki nga xam ne kilif te ñëpp ci ci sa loxo la nekk mooy buur wala ci sa kër foofu moom ñaawteef bu fa wéyee nga ne munuma ci dara rek def laa neex bu dee ab soxna fase ko ndaxte tadu ila naar wa anta tadu ila aljanna mais ñaan ñooñu munu ñaan kii safara la la jëmi kii yow aljanna nga bugg a jëm wax nga ba sonn def nga lu ne waar nga baaxul gàddaay nga ci lal bi baaxul dóor nga baaxul woo nga sa kenn ci yow kenn ci ñoom doxul mais lu ci def jéggal ko baaxul jéggal ko baaxul nga indi koo xam ne ku baax la kon loolu yéene bu dëgër boobu boo ko amoon rek sa kër mbaax moo fay dal di ne mu ne nag su fekkee munoo defee loxo defee làmmiñ làmmiñ nag mooy borom xam-xam xam-xam nag donte benn aaya nga yore borom xam-xam nga ci aaya boobu balligoo an nii wala waaya bi ci mujj nag mu ne kookoo gën a néewub imaan mooy naqarlu dong ah man tey moom maa ngi koy naqarlu te naqarlu boobu dafa am sart boo ko naqarloo naqarlu bi na feeñ bu mu nekkati sa kër bul àndateeg moom bul jaxasoog moom bul toog ak moom ñu yëg ne ah diw mu ngi naqarlu li diw di def waaye daa iman yaa ngi jaxasoog moom di toog ak moom di foo ak moom di ree ak moom nga ne maa ngi koy naqarlu man kay dama ci munul dara rek man kay bu doon sama sago li nekk sa sago yaa ngi koy def li nga bëgg yaa ngi koy def ku la ko xañ rek nga dal di digleeg moom ku la ko xañ rek nga dal di digleeg moom
bu ñu toogoon nga xam ne fu timis jot rek soxna si tëj naan doo fi fanaan ah yaakaar naa bu yàggee ñu yëg ko de loolu nag loolu nañ ci bàyyi xel loolu itam diine ji na la ko jaral diine jooju moom itam na la ko jaral kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne ñu ak yeneen yu dul yi ma la tuddal fii kon ñu tënk fii suñu dars di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu ñu jëfee ko yàlla nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol bu koy dëddu wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أسرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بقي ci pas pas borom bi subhanahu wa ta'ala dajale waat nañu ci ay xiwalam ak mbaaxam ngir ñu bokk ca ña ñara texe suñu nangoo yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala may dellu si waat nañ ci al usul althalaatha ñetti ponk yi jaam bi war a xam yittewoo ko te waru koo réeree kuy boromam kuy yonentam lan mooy diineem te ñu teg ko ci ay tegtal yu jóge ci téere borom bi subhanahu wa taala ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu bu ñu ci bàyyee xel mooy yoonu texe dal nañu ci borom bi subhanahu wa taala jàppandalal kon ci loolu lañu nekkoon ngir gën a leeral yoon wi ñu sóobu woon ci xijra mooy gàddaay fa ñuy defee kéeféer jëm fa ñuy sampee pas-pasub kenn yeyoo jaamu di borom bi subhaanahu wa taala walla ci dégg-dégg bu yaatu bi fa ñuy defee lu bon jëm fa ñuy defee lu baax waxoon nañu ci ay mbir yu bari yoo xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jog na ci ba mu jog makka dem madina mu junjal ñu ci lu am solo di al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar di digle njekk lu baax jaamu yàlla bëggante dimbalante moo taxoon borom bi subhanahu wa taala dooleel ko def ko chartu mbaax kuntum xayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا خيرية هذه الأمة في هذه الثلاث kon digle lu baax tere safaan ba mu ne loolooy tax nit baax mu ne kon xeet wii laay tax mu baax benn la ci ñett digle lu baax tere safaan ba gëm yàlla mu ne loolu daal boo ko defee bokk nga ci ñu baax mu wax nag ñu néew lañuy doon waaye góorgóorlul bokk ci lim bu néew boobu waltakun minkum umma yadu'una ila alxayr wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhawna anil munkar waltakun minkum umma na nekk ci yéen boobu ab kuréel boo xam ne loolu lay yittewoo kon dangay góorgóorlu bokk ci kuréel boobu junjaloon nañu itam beneen kuréel mu ne góorgóorlu itam bokk ca booba mu ne kuréel bu ne na am ñu ca joge jàngi diine bu ñu ko jàngee nag be man ko bu ñu toog nañu dellu siwaat fa ñu joge ñu dal di leen xupp la allahum yahdaruun ngir ñu mun a tiit dal di dellu siwaat kon nit ki dafa war a góorgóorlu itam dal di bokk ca kuréel booba ndaxte kuréel booba itam mooy kuréelu texe yàlla nañu ci borom bi boole kon yii yépp boo ko dajalee danga gis ne sharia du ànd ak raaxa maanaa sharia du ànd ak noflaay te yoon bi ñuy woote woo jaar ci yoon bu sori la te yoon bu bari ay coono la moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne bul yaakaar na rek dangay ne aman naa gëm naa rek jeex na mu ne aa du noonu de ah ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu amanna wa hum laa yuftanuun mu ne waaw da ngeen yaakaar ne nag da ngeen ne gëm nañ rek ñu bàyyi leen jeex na ah diw moom gëm na moom imaanam moom rek borom bi subhanahu wa taala mu ne ma bala rek nga dem mu ne du noonu de ah foog ma yëgal la nag li ñu seet yow imaan bi nga wax dëgg la wala du dëgg ma teg la ñàkk goo xam ne dinañ seet ndax maandu dina fa des ma teg la am am boo xam ne ba ma seet ndax suufe dina fa des ma jox la autorité boo xam ne ba ma seet ndax kàccoor dina fa dugg léeg-léeg ma teg la suufe nga xam ne duñ la considéré ba ma seet ndax muñ dina ci bokk kon yii yëpp borom bi subhanahu wa taala mu ne dinaa la ci jaaree seet rek ndax di nga jàdd ci yoon wii kon yoon wu leer la waaye yoon wu sori la te gudd kenn mënu koo jeexal dang ciy def sa kem ak dund rek dal di dem kon nag nit ki na rafetal ca la mu toll kon ñu ne yii yépp nag cib yaatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ngi ko sampee woon ci madinatul munawwara bu ñu fàtte ba mu ñëwee la mu njëkkee mooy lii dajale nit ñi mooy fi ñu toog mooy samp néeg bu ñuy askanalee borom bi subhanahu wa taala ñun ñépp di fa daje xamantee fa miinante fa tàmmante fa jàngalewante fa ba mu jógee ci jéego boobu mu dem ci ta aaxi gan ya ñëw nañu fekk nañu dëkkandoo yi ñu mbokkale leen kon loolu itam ñu xam ne fokk rek manta ñàkk ci biir islaam ba loolu jàllee nag mu dem nag ci tawsiya bi mu bindoon na nga xam ne mooy lënkale ñépp ñi gëm ak ñi gëmul yépp looloo leen di lënkale ngir ñu mun a dund ku nekk xam fa nga yem kon taxawaay yii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sampee woon dawla al islaamiya ci madinatul munawwara xatta ñi ko gëmul nangu ne ku maandu la xatta ñi ko gëmul ñoo nangu ne kii day ku maandu la ñoo nangu ne kii day du waxantu ñoo nangu ne kii day lu mu wax rek boo seetee am na solo moo tax ci gannaaw gi ci at yu mujj yi ba ñu dajee di xelaatal aduna bi am benn ku bokk ci yeneen diine te gëmul mu ne man daal coono yi yépp xam naa ne moom yi ñu dab tey bu fekkoon ne muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dund balaa ngay naan kaasub ndox mu régler problème yi balaa ngay naan kaasub ndox mu dal di régler problème loolu nag li koy indi mooy dëggu ñu won ne yow li ngay ñoddi mooy nañu dem ci kenn ki kon mu ne ñu ak wa gayru zalika min shara'i lislaam ak leneen lu dul loolu ci tëralinub islaam nga xam ne moom dong nag mooy tëralin mu ne nañu yëg ne nag lim la junjal fii ci wàllu pas-pas mu ne yonent bi sallallahu alai sallam jàngale na ko fukki at moo tax mu ne ñu axada ala haada ashra sinin fukki at bu jógee la muy wax rek mooy qulu laa ilaha illa allah tuflihun waaw kaddu gi wax leen ko rek yéen dal di texe wax leen kaddu gi rek dal di texe moo tax umar ibnu alxataab radiallahu anhu mu ne kenn du mun a texe lu dul dangaa xam dundub ceddo nga génn ca dem ci islaam mu ne koo koy texe ndaxte koo koy xam lan mooy ceddo ndaxte bu duggee nii rek ci islaam day dem dund ci dundinu ceddo ci jëfam ak jikkoom te yëgul na ndeke lii mbiru ceddo la ndaxte woote jëme ci kër aduna bi xejul ci kër abadan woote jëme ci sant am nañu amul sant woote jëme ci réew munul giide ñépp weet woote jëme ci qabila maanaam aw xeet am na ñeneen ñu xamul ne sax xeet boobu am na kon yooyu yépp xat na mu ngi mel ni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romboon rek moom yëkkati ay loxoom rek allahumma aatini allahumma anqisni allahumma ahdini yow borom bi jubal ma yow borom bi musal ma yow borom bi may ma yonent bi ne ko yaa haada dayyaqta waasi'an waa yow xatal nga lu yaatu lool allahumma ahdina anqidna waatina mu ne boole ci ñëpp ndaxte borom bi subhanahu wa taala am na ko te man na ko kon neel may ñu jubal ñu defal ñu kon loolu moo tax diine jii foog ñu yóbbu ko ci ki ko moom te attan ko mooy borom bi subhanahu wa taala li ñu sonnal nag mooy pas-pas amul place ci suñu daara suñu daara yi pas-pas amul ci place wëral seet suñu taalifaat yi ñu taalif da nga gis ne pas-pas ak a cee néew ci yeneen kay la ñuy dal di wax ci yeneen yeneen yeneen moom sawar nañ ci wax nañ ci yu bari waaye bu ñuy tudd pas-pas rek ñu ne day diingat ndaxte ka ngay woote jëme ci moom lang boo jëmee ci alquran da nga gis ne fas na leneen lu dul loola ndaxte fas na ku teewee guddi gii yàlla jéggal na la ndax yàllaa ko wax ndax yonentu bee ko wax te sa guddi googu bid ala waaw kañ la yàlla di jéggalee doomu aadama def bidaa ku ñàq indi fii jéggal nañu la waaw kañ la ñàqal doomu aadama di indi njéggal kon mbir yu mel noonu moo tax boo delloo ci pas-pas rek ah nga gis nit ñi commencé fiiwaloo waaye boo doon wax ci axlaaq di wax ci julli di wax ci asaka mun ngaa wax ba sonn doo am benn jafe-jafe xata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la indi woon jafe-jafe bi rek mooy laa ilaha illa allah ñu dal di taxaw ñu ne ah doy na waar kat ajaala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab ah mu ne yàlla yii yëpp ñetti téeméer ak juróom benn fukk mu ngi fii ci ay xërëm waaw yii yépp nag tey mu ne duñu dara kenn ki nit mënul teg bët mu ne kookoy dara ah seetaat leen mbir mi mu ne doy na waar ah mbir mi doy na waar de kon nag loolu boo koy wax rek taxawal nga xam ne ah mbir mi doy na waar loolu moo tax waraqatu bnu nawfal ba xadija radiallahu anha demee ci moom nettali ko li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis mu ne akayeloon may dund keroog ba ko waa makka di génnee ma ànd ak moom wala ma dimbale ko yonent bi gis ne niñ ko fonkee niñ ko bëggee mu ne waraqa danañ ma génnee mu ne ah li nga wax nag kenn masu koo wax te génneewuñ la de kooku moom waajal ko waajalal nag loolu kon loolu mooy pas-pas munoo toog jàngale ko lu dul xeex nañ la imma xeex la ci madda wala xeex la ci autorité walla xeex la ci jox la ay dàkkental yow moomul ah ñii day gëmuñ dara ñii dara gëñ muñ ko ñii moytu leen leen de ñii ay wahabiya lañu ñii moytu leen ay wahabiya lañu mais lan mooy wahabiya ah te moom boo seetee dàkkaltal na boppam ci beneen tur bu dul turam walla mu woote woo mu wuyoo beneen sant bu dul santam moom d'accord nañu qualifié ko ci loolu waaye foog mu indi la qualification boo xam ne day fexe ñu dal di la sori ñu dal di la bàyyi ah ñii ñooy ñi bañ mag yi hakada ñii ñooy ñi bañ mag yi hakada kon yooyu yépp dañ koy sóoraale nga xam ne bu ñëwee ah yaa ngi ci yoon am na benn kilifa bu mag léeg-léeg ñu koy askanale ibnu taymiya rahimahullah ñu ne ko waaw yow nag woote bi ngay woote coono bi nga ci am ay tëj yiñ la tëj ak niñ la sonnalee waaye yow nag noo gisee loolu mu ne lii bu ma dabu doon ashukku fi tariqi mu ne fekkoon ne defuñu ma nii mu ne waaw mu ne kon dinaa sikki sàkka ci yoon wi ma jaar ndax mooy yoonu yonent ba am la waaye gannaaw ba ma dabee nag xam naa ne yaqinan ala tariq wóor na ma ne maa ngi ci yoon wi lan lañ ko waxoon shaair kaahin kazzab kazzaabul ashir majnuun yii yëpp wax nañ ko ko ah kii de moom woykat la rek xam nga buñ la ah kii di wax rek kii mbir mu muy wax dara day woy rek kon gis nga neenal nañu ko ñenn ñu ne ah déedéet kii njabarkat la kaahin la kii buxaabakat la moom mooy li muy wax nii ñeneen ne ah déedéet kii de melul noonu kii di dof ñu ne ah li muy wax du am ndofkat ñeneen ñu ne ah déet kii fenkat la ñeneen ñaw fenkat ba gën a bon moo taxoon borom bi subhanahu wa taala waa mu ne ba ëllëg ñu xam manil kaddaabul ashir ñu ne ëllëg dinañ xam yéen ñii kan mooy fenkat bu bon bi ëllëg dinañu ko xam kon nag loolu moo tax doomu aadama bi na waajal yooyu yépp xam ne li yonent bi de fukki at du caaxaan de te risaala bi yépp mu ngi ñaar fukki at ak ñett fukki at yi yépp benn tomb bi la ko jox mooy tawhid ba yooyu jeexee fukki at ak ñett yi des lu wàcc ci àtte ci yooyu la wàcc kon nag loolu ñu gis ne jaam bi da ci war a dëgër bu baax a baax mu ne nag ci lii la dund ci lii la deewee nag nañu wa baadaha tuufiya salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi wa diinuhu baaqin mu ne ci lii nag la fi jógee kon nag ku nekk dina fi jógee fekkoon ne soppe dina tax nit ki des fi yonent bi du dem abadan ndaxte turu borom bi subhana wa taala turam mu ne nag ci lii la dundoon jóge fi waaye diineem nag du fi jóge de diine bi fii lay des mu ne diine jooju nag mooy lii wa haada diinuhu wa haada mooy lii mooy lan la mu bàyyee woon yonent ya la mu bàyyee woon saxaaba ya te keroog ba borom bi subhana wa taala assuré ne mat na ci ñetti wàll la wonee ne mat na ndaxte ñëw nañ xijjatul wada te benn aj googu la sallallahu alayhi wa sallama def mu dal di taxaw bu baax a baax naan leen xudu anni manasikakum jëlee leen ci man ni ñuy ajee mu ne déglu leen bu baax déglu leen bu baax li ma leen di wax amaan na kat dootu ñuy daje fii gannaaw ren de amaan na dootuñu daje fii gannaaw ren kon déglu leen bu baax li ma leen di wax mu ne leen waaw lama borom ba joxoon ndax yegg si na hal ballagtu risala ñu ne ko naam ballagta risalata wa addayta al amanata wa nasaxta al umma ñu ne waaw yonent bi sal allah sallam wallahi yegg si na liñ la joxoon indi nga ko leer na waaye kollëre gi itam sàmm nga ko leer na waaye laayee nga ñu biir lépp luy jëriñaate joxoñ nga lépp luy loraate joxoñ nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati baaroomam ci kaw naan allahumma ashhad waaw borom bi subhana wa taala seedeel ma lii gaa yi wax boobu ndax lu dëggu la borom bi subhana wa taala ne aka dëggu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum lislaama diina mu ne alyawma tey kon nag loolu jàll na keroog ba mu fa taxawee kon nag loolu jàll na kon buñ doon seet ñu ngi tënkee suñu taarix ci hijra loolu nag li koy indi mooy dëggu ñu won na yow ñu ay ñoddi mooy nañu dem ci kenn ki kon mu ne ñu ak wa gayru zalika min sharai lislam ak leneen lu dul loolu ci tëralinub islaam nga xam ne moom dong nag mooy tëralin mu ne nañu yëg ne nag lim la junjal fii ci wàllu pas-pas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko fukki at moo tax mu ne ñu axada ala haada ashra sinin fukki at bu jógee la muy wax rek mooy quulu laa ilaha illa allah tuflihu waaw kaddu gi wax leen ko rek yéen dal di texe wax leen kaddu gi rek dal di texe moo tax umar ibnu alxataab radiallahu anhu mu ne kenn du mun a texe lu dul dangaa xam dundub ceddo nga génn ca dem ci islaam mu ne koo koy texe ndaxte koo koy xam lan mooy ceddo ndaxte bu duggee nii rek ci islaam day dem dund ci dundinu ceddo ci jëfam ak jikkoom te yëgul ne ndeke lii mbiru ceddo la ndaxte woote jëme ci kër aduna bi xëjul ci kër abadan woote jëme ci sant am nañu amul sant woote jëme ci réew munul giide ñépp weet woote jëme ci qabila maanaam aw xeet am na ñeneen ñu xamul ne sax xeet boobu am na kon yooyu yépp xat na mu ngi mel ni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romboon rek moom yëkkati ay loxoom rek allahumma aatini allahumma anqidni allahumma ahdini yow borom bi jubal ma yow borom bi musal ma yow borom bi may ma yonent bi ne ko yaa haada dayyaqta waasi'an ne waa yow xatal nga lu yaatu lool allahumma ahdina anqidna waatina mu ne boole ci ñëpp ndaxte borom bi subhanahu wa taala am na ko te man na ko kon neel may ñu jubal ñu defal ñu kon loolu moo tax diine jii foog ñu yóbbu ko ci ki ko moom te attan ko mooy borom bi subhanahu wa taala li ñu sonnal nag mooy pas-pas amul place ci suñu daara suñu daara yi pas-pas amul ci place wëral seet suñu taalifaat yi ñu taalif da nga gis ne pas-pas aka cee néew ci yeneen kay la ñuy dal di wax ci yeneen yeneen yeneen moom sawar nañ ci wax nañ ci yu bari waaye bu ñuy tudd pas-pas rek ñu ne day diingat ndaxte ka ngay woote jëme ci moom lang boo jëmee ca alquran da nga gis ne fas na leneen lu dul loola ndaxte fas na ku teewee guddi gii yàlla jéggal na la ndax yàllaa ko wax ndax yonent bee ko wax te sa guddi googu bid ala waaw kañ la yàlla di jéggalee doomu aadama def bidaa ku ñàq indi fii jéggal nañu la waaw kañ la ñàqal doomu aadama di indi njéggal kon mbir yu mel noonu moo tax boo delloo ci pas-pas rek ah nga gis nit ñi commencé fiiwaloo waaye boo doon wax ci axlaaq di wax ci julli di wax ci asaka mun ngaa wax ba sonn doo am benn jafe-jafe xataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la indi woon jafe-jafe bi rek mooy laa ilaha illa allah ñu dal di taxaw ñu ne ah doy na waar kat ajaala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab ah mu ne yàlla yii yépp ñetti téeméer ak juróom benn fukk mu ngi fii ci ay xërëm waaw yii yépp nag tey mu ne duñu dara kenn ki nit mënul teg bët mu ne kookoy dara ah teetaat leen mbir mi mu ne doy na waar ah mbir mi doy na war de kon nag loolu boo koy wax rek taxawal nga xam ne mbir mi doy na waar loolu moo tax waraqatu bnu nawfal ba xadija radiallahu anha demee ci moom netti li ko li yonent bi salallahu alayhi wa sallam gis mu ne akayelloon may dund keroog ba ko waa màkka di génnee ma ànd ak moom wala ma dimbale ko yonent bi gis ne niñ ko fonkee niñ ko bëggee mu ne waraqa danañ ma génnee mu ne ah li nga wax nag kenn mosu koo wax te génnewuñ la de kooku moom waajal ko waajalal nag loolu kon loolu mooy pas-pas munoo toog jàngale ko lu dul xeex nañ la imma xeex la ci madda wala xeex la ci autorité wala xeex la ci jox la ay dàkkental yow moomul ah ñii day gëmuñ dara ñii dara gëñ muñ ko ñii moytu leen leen de ñii ay wahabiya lañu ñii moytu leen ay wahabiya lañu mais lan mooy wahabiya ah te moom boo seetee dàkkaltal na boppam ci beneen tur bu dul turam wala mu woote woo mu wuyoo beneen sant bu dul santam moom d'accord nañu qualifié ko ci loolu waaye foog mu indi la qualification boo xam ne day fexe ñu dal di la sori ñu dal di la bàyyi ah ñii ñooy ñi bañ mag yi hakada ñii ñooy ñi bañ mag yi hakada kon yooyu yëpp dañ koy sóoraale nga xam ne bu ñëwee ah yaa ngi ci yoon am na benn kilifa bu mag léeg-léeg ñu koy askanale ibnu taymiya rahimahullah ñu ne ko waaw yow nag woote bi ngay woote coono bi nga ci am ay tëj yiñ la tëj ak niñ la sonnalee waaye yow nag noo gisee loolu mu ne lii bu ma dabu doon ashukku fi tariqi mu ne fekkoon ne defuñu ma nii mu ne waaw mu ne kon dinaa sikki sàkka ci yoon wi ma jaar ndax mooy yoonu yonent ba am la waaye gannaaw bam ma dabee nag xam naa ne yaqiinan ala tariq wóor na ma ne maa ngi ci yoon wi lan lañ ko waxoon شاعر كاهن كذاب كذاب الأسير مجنون يب wax nañ ko ah kii de moom woykat la rek buñ la ah kii di wax rek kii mbir mi muy wax dara day woy rek kon gis nga neenal nañu ko ñenn ñu ne ah déedéet kii njabarkat la kaahin la kii buxaabakat la moom mooy li muy wax nii ñeneen ne ah déedéet kii de melul noonu kii di dof ñu ne ah li muy wax du am ndofkat ñeneen ñi ne ah déet kii fenkat la ñeneen ñi aw fenkat ba gën a bon moo taxoon borom bi subhanahu wa taala waa mu ne ba ëllëg ñu xam manil kadabul ashir ñu ne ëllëg dinañ xam yéen ñii kan mooy fenkat bu bon bi ëllëg dinañu ko xam kon nag loolu moo tax doomu aadama bi na waajal yooyu yépp xam ne li yonent bi def fukki at du caaxaan de te risaala bi yépp mu ngi ñaar fukki at ak ñett fukki at yi yépp benn tomb bi la ko jox mooy tawhid ba yooyu jeexee fukki at ak ñett yi def lu wàcc ci atte ci yooyu la wàcc kon nag loolu ñu gis ne jaam bi da ci war a dëgër bu baax a baax mu ne nag ci lii la dundu ci lii la deewee nag mu ne ñu wa baadaha tuufiya salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi wa diinuhu baaqin mu ne ci lii nag la fi jógee kon nag ku nekk dina fi jógee fekkoon ne soppe dina tax nit ki des fi yonentu bi du dem abada ndaxte turu borom bi subhana wa taala turam mu ne nag ci lii la dundoon jóge fi waaye diineem nag du fi jóge de diine bi fii lay des mu ne diine jooju nag mooy lii wa haada diinuhu wa haada mooy lii mooy lan la mu bàyyee woon yonent ya la mu bàyyee woon saxaaba ya te keroog ba borom bi subhana wa taala assuré ne mat na ci ñetti wàll la wonee ne mat na ndaxte ñëw nañ xijjatul wada te benn aj googu la sallallahu alayhi wa sallama def mu dal di taxaw bu baax a baax naan leen xudu anni manasikakum jëlee leen ci man ni ñuy ajee mu ne déglu leen bu baax déglu leen bu baax li ma leen di wax amaan na kat dootu ñu daje fii gannaaw ren de amaan na dootu ñu daje fii gannaaw ren kon déglu leen bu baax li ma leen di wax mu ne leen waaw lama borom ba joxoon ndax yegg si na hal ballagtu risala ñu ne ko naam ballagta risalata wa addayta al amanata wa nasaxta al umma ñu ne waaw yonentu bi sal allah sallam wallahi yegg si na liñ la joxoon indi nga ko leer na waaye kollëre gi itam sàmm nga ko leer na waaye laayee nga ñu biir lépp luy jëriñaate joxoñ nga lépp luy loraate joxoñ nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati baaroomam ci kaw naan allahumma ashhad waaw borom bi subhanahu wa taala seedeel ma lii gaa yi wax boog ndax lu dëggu la borom bi subhanahu wa taala ne aka dëggu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diinaa mu ne alyawma tey kon nag loolu jàll na keroog ba mu fa taxawee kon nag loolu jàll na kon buñ doon seet ñu ngi tënkee suñu taarix ci hijra keroog ba mu gàddaayee kon gàddaay googa mun nañu wax ne gannaaw ga li gën a notal ñenn ñu ne dund na fa fukki at mu sog a dem ci at bu mujj boobu la sog a dem makkatal mukarrama kon ci taarix bi ñu génnee ci fukki at kon ñu ngi ci mille quatre cent vingt deux kon ñu desee mille quatre cent onze ci ay at aaya boobu aaya bi ba léegi keroog laa xoon tey kon loolu jàll na mu ne tey nag mat na ak maltu mat na jeex na de diine ji moom aajootul yokk yàlla ne mat na wa at mamtu mottali na diine ji ci boppam kaamil mat na amma risaala bi itam mottali naa ko maanaam tëj naa ko lii mat nag ak li ma tëj nag radiitu bég naa nag ñu jaamoo ma nii imaamu malikin rahimahullah mu ne keroog ba aaya bi wàccee maa lam yakun diinan laa yumkinu an yakuna alyawma diina mu ne keroog nag li bokkuloon tey munatul bokk abadan kon loolu munatul kon ci loolu moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la génnee aduna te bokk na ca ay kàddu yi nga xam ne dañul di ko wax ba tàggoog ruux dañul di ko wax maanaa assalaa wa ma malakat aymanukum الصلاة وما ملكت أيمانكم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد mu ne leen julli ak li ngeen yëlif ngelawaay julli ak li ngeen yëlif mu ne waay waay waay yal na yàlla rëbb waay li nga xam ne mooy yahud ak nasaara ndaxte jël nañu bàmmeli yonent ya def ko jaamukaay waaw mbaa ñamu doon rëbb di leen tere mbaa loolu roogaatul ñëw ci ñun kon la mu doon rëbb di ko tere mu bokk ca la mu mujj a wax loolu dal dina ñëw ci diinal islaami kon jëlewuñ ko fenn lu dul ci yahud wa nasara nit ci jàkka bàmmeel ci jàkka kooku asluhu min al yahudi wa nasara amul benn place amul cëslaay ci lii nga xam ne mooy diin al islaami loolu moo tax nag njuumte metti njuumte bon moo tax ab njuumte am na ñu jëlee ko lay boo ne ah gaa yaa ngi koy tere fii rek dañuy wax xanaa demuñu madina xanaa demuñu madina nga gis bàmmeelug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis abu bakrin gis omar xanaa du ñoom foofu lañu nekk naam ci ñaari asbaab benn sabab bi mooy ahadis yu wér ñëw na ne yonent fi mu génne aduna duñ ko toxal te mu ngi génne woon aduna ci néegu aisha radiallahu anha mu nekkoon ci wàllu penku ca jàkka ja wàllu penku ca jàkka ja wala néeg ba nekkoon ñu dal di ko fa denc muy ba àndandoom ba demee ñu def ko ci wetam ba umar ubnul xataab radiallahu anhu demee be sonn dem ñaani aisha radiallahu anha mu ne ko ah béréb bi des day moom soxla naa ko mu ne ah mu nekkuloon ku mel ni yow day duma nangu ndaxte sama bopp laa ko dencaloon nekk wetu sama borom kër ak sama papa waaye gannaaw nag yaay amirul muminina ñaan nga ko day mun naa def tanaazul mu bàyyee ko ko ñu dal di ko denc foofu aduna di dem nag ñu yokk ba yokk bi dal di ko jege lool néew xam-xamu sharia di wàññeeku lool nit ñi commencé def niñ koy def ci makkatal mukarrama di ko wër ñu def ab miir mu dal di taq ci jàkka ji kenn mënatu koo wër ñu dem itam ba cib jamono ñu dal di ko yokkaat benn càqu penku bi dal di romb romb néeg bi kon lii moo dugal xabru yooyu ci biir jàkka ji donte nag xataa la ab njuumte la njumte boobu ndax dañuy wax ne xanaa ay borom xam-xam amuloon aha kay borom xam-xam am nañu bind nañu naqarlu nañu waaye borom xam-xam mbir la buur bi nga xam ne nag mooy wéyale itam beneen mbir la kon ci anam googu la fa dal di duggee loolu ba mu jàllee yaatuwaay biñ ko yokk nag temps yii dal di ñëwaat romb ko nag loo xam ne dina war a toll ci ay cinq cent mètres ci ñaari wàll yi yépp yooyu moom mbiru politique laxasu ci loolu moom mbiru politique moo ci laxasu li nga xam ne amoon na ci ay at yoo xam ne day toll ci ay junni at wala mu jege tey jii bu ma ko soppee dinañu wax ne haulaai kafaru tey jii buñ ko toxalee dañuy wax ne gaa yi yéeféer nañu de gaa yi nekk nañu ay yéeféer ni ñu waxee ne muhammad ibn ibnu abdul wahab yéeféer la te am nañu koy wax ngir ne dal dina ñëw ne bàmmeel moom kenn du ko def ci jàkka lenn duñ ko jaamu lu dul borom bi subhanahu wa taala ñu tuumal leen tuuma bu metti boobu ba këpp ku ne yàlla ne na yonent bi ne nañu ne wahaab yi nga waaw naka nag bu malik fëhët ñëwoon tey rek mabbu yooyu mu ne yonent bi moom du nekk ci biir jàkka ji abadan boo moytul nag ñu ne gaaya léeg léegi dof nañu nekk nañu ay yéeféer loolu dong moo tax yokk bi dal di ko romb waaye boroom xam-xam yi waxoon nañu de ñu étudier ko ci anam yi yépp ñu gis ne ñaari yàqute la kon mu dal di fi des boroom xam-xam yi di wax loolu moo gën a mucc ak ayib moo tax rafetal yi ñu doon def ci dawlal usmaniya ñëw ci jàkka dal di ko rafetal bind ci aaya alquran def ci ay mbir yoo xam ne dañ koy kiyee orne or boo demee yokk gi ñu def ci gannaaw gi yépp am dara amu ca ndaxte dañu taxawoon ngir dindi loolu waaye ñu gis ne ah lii boo ko laalee yeneen mbir dina xew ñu commencé nag di ko wàññi ndànk ndànk at boo dem rek gis am na lu wàññeeku moo tax taw si ah maanaam li ñu mujj a yokk ci gannaaw gi amul lenn ci loolu defuñ ci lenn loo xam ne day rafetal defuñ ci lenn loo xam ne ay bind wala ay yeneen lu dul turu buntu ak ak numéro loolu daal moo ci dal di ne loolu moo tax jamono boo ko seetee balaa ngay atte jamono ju ne dangay seet la doon dem kon li loolu dugg ci biir foofu du atte abadan moo tax toujours ay policier ngi taxaw boo ñëwee bugg a tàllal loxo ñu ne déet yonent bi kenn du ko ñaan jublul xibla dal di ñaan boo ñibtee fii na nga ne ah naare yi gaa yi xamuñu dara ñii ñii bugguñu sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hakada ñi bañoon yonent bi ba léegi ñu ngi fa des fekk nag du loolu yow la ñuy jubbanti ci sa pas-pas bul dem be foofu am bàkkaar bul dem be foofu sa jëf yépp dal di sippeeku ndaxte yonent bi sax joxoñ nañu ko ñu ne boo bokkaalee ma màbb sa jëf wa laqad uuhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alxaasirin yow mii muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ak ñi la fi jiitu woon ku nekk yàlla déey na la mu ne boo ma boolee keneen rek ma màbb sa jëf nga perte kon police boobu taxaw daa bañ sa jëf màbb daa bañ nga perte waaye léeg-léeg rek mu nekk lu doy waar nga dal di ko noonoo dal di wax yeneen ak yeneen waaye yooyu nañ ci bàyyi xel yaakaar naa ci jamono ju yàggul rek am na xew-xew bu fa xewoon benn bés rek gaa yi dal di dem ñu ne gaa yi dañuy wax rek waaye ci jàkka yonent bi dinaa fa wasifa day naam ñu dal di ñëw ci taw si abi dal di toog rek def xalqa hakaza foofu nag ñi solul toni ci police moo ëpp sax ñii sol toni gaa yi toog rek mais waxuñu dara ñu def la ñuy def ba ñibbi tàkkusaan ëllëg ñu dal di ñëwaat def nag bi yoon forme bi ñuy def nag commencé munu munu ay baat nag waaye yaakaar naa ba léegi daal la yaa nga fa ay naam moo tax diine li yonent bi waxoon la mu ne lii nga xam ne mooy buur borom bi subhanahu wa taala dina def ci moom lu mu deful ci qur'anul karim xam nga qur'an tere na def na lu ne waaye dara nit ñaa ngi ciy womatu waaye nag ba nga xamee ne am na yenn liif yoo xam ne ñoom dañuy def dara loolu moom fala yem fala yem bu baax a baax te am na fii Sénégal fii ñu ko fekke woon bokkoon ci ñu ci gën a bari sax ñoo nettali mbir ma am na benn waay ba mu koy nettali mu ne waaw xaw ma ni ñu koy déggee de waaye keroog tàng yaram yi tàng na allahu aalam kon yooyu mooy mbir yu bari yoo xam ne doom nit ki da ciy war a bàyyi xel ci digle njekk tere safaan ba ba léegi jël nañ ci ñaari matuwaay yoo xam ne ñu bari ñu ngi leen koy xasee te xamuñu la xew benn bi mooy gàllaaj ak téere li ma jublu ci téere mooy beneen téere bu ñu bind boo waxee ñu ne ah gars yi de moom rëy rëylu la wala neneen déet wallaay sàmm aqida bi rek fa nga xam ne dëgg-dëgg foofu la mbir mi ne foofu la qur'an wàccoon foofu la kii foofu buñ ko sàmmul rek du baax moo tax léegi kuy aji itam boo ñëwee loo mun a takk ci gàllaaj aéroport laay yem amul ci benn problème nag boo buggee rek bàyyi ko fi dem aji boo buggul mun ngaa delluwaat te foog ñu dal di ko sàmm ñaareel ba te ñu leen di ci xasee mooy guro guro léegi c'est interdit ñenn ñi nag naan ne dañuy xaraamal guro la xaraamaluñ ko ndaxte décision bi bañ koy jël sama kanam la dañu calculer lu ne def nañu ko waaye ñu gis dorog bi gën di dugg xamuñ fu muy duggee waaye ñu jàpp nag ci seeni gëstu ñu gis ne li muy dugg yépp guro lay duggee dagi dañuy jël guro xolli doom bi xeet ci biir ba mu yaatu dugal fa dorog kole ko def ko ci ay pañe mu dal di ñëw di dugg ñu def lu ne wër lu ñu def rek ba ñu dal di jàpp yooyu seet jàpp jàppaat jàpp jàppaat ñu ne gannaaw mbir mi noonu la léegi interdit nañ guru bu mu fi duggaat foofu kon du maanaa guru bi ci boppam déedéet mais maanaa bi mooy doomu guro yi yëpp munoo koo xaaj loolu ay coono la te boo koo xaajee itam mu nekk yàqu marchandise jàmbur te léegi nag la muy lor moo ëpp la muy jëriñ ñu ne kon nag gros c'est interdit pour ñu dal di ko dugal fii kon anam googu dong lañ ko interdé mais nekkul abadan ngir lekk ko wala xaraamal ko wala yeneen bi waaye da ngay dégg coowkat yoo xam ne naar yi dañ ñu yàpp ñu ngi naan café bu gën a weex guro ñu ngi def nangam ak nangam imma xamuñu li xew wala xam nañu li xew dañuy dal di fettirlu kon mbir yooyu yépp nga xam ne yonent bi fa la taxawoon loolu la defoon mbir yooyu te noonu la ko doon sàmmee kon dëgg-dëgg ña ko wuutu dañ ko war a sàmm sàmmin boo xam ne sàmmin bu mat la mu ne kon lii mooy diineem gannaaw ba ngeen xamee ne lii la nag da ngeen di gëm-ngëm gu mat ne laa xayra illa ma dalla al ummata alayhi wala charra illa ma xazzaraha minhu muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah mu ne dañuy gëm ne jàmm ak yiw amul lu dul li yonent bi joxoñ ci xeet wi mu ne def leen mu ne lu bon ak lu yées ak li ñuy xupp doomu aadama mu bàyyi ko itam amul lu dul la mu joxoñ mu ne moytu leen ko mu ne yooyu boo amee pas-pas boobu rek yaa ngi ci diine bokk nga ci ñi nga xam ne itam dañuy mucc ëllëg ndaxte boo ci duggee loolu la ñuy tuddee almahaalik loo xam ne day alag loo xam ne day yàq mu ne ñu boo seetee nag wal xayru alladi dalla alayhi attawxid mu ne jàmm gi mu joxoñal xeet wi nag mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu dong ngay jàmm gi de wéetal borom bi subhanahu wa taala wéetal borom bi nag dangay weddi lu dul borom bi moo tax borom bi subhanahu wa taala dal di ñu wax ne wa man yakfur bittaaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati l wusqa lan fisaama laha mu ne cay képp ku weddi lu dul yàlla mu gëm yàlla kooku ngoy na ci buum bu dul dagg du fireeku du tekkeeku mu ne fi nga mooy du dagg du firenceku du tekkeeku foog na nga weddi ku dul borom bi subhanahu wa taala samp borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu boo ko defee rek jeex na jub nga faqad hudiya ila siratin mustaqim ci beneen aaya képp ku weddi lu dul borom bi nga gëm borom bi yow day jubal nañu la yoonu njub moo tax booy dugg looy wax laa ilaha kon dàq nga lépp lu ñuy jaamu yàlla sax bokkatul illa allahu nga dal di ko saxal kudul yàlla kon baat boobu nag mooy buum bi borom bi subhanahu wa taala wax ñun ñépp nañu ci jàpp waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ngeen la waay mooy leen ci buumu borom bi subhanahu wa taala bii bu leen teqale koo de buum boobu nag mooy ci lii wone jàpp nga ci am na juróom ñaari càq wala nga ne juróom ñaari charte loolu la ñuy tuddee suruutu la ilaha illa allah képp ku wax baat bi te mu nekk ci sa baat ci sa xol boo seetee charte yooyu juróom ñaari yëpp dina nekk ci moom charte juróom ñaar yooyu ñu ne mooy al ilmu wal yaqiinu wal qabuulu wal inqiyaadu qadri ma aquulu wassidqu al ilmu mu ne bi ci tegu mooy yaqiin ngëmam moom day nekk ngëm gu fés waaye du sikki sàkk dee am na wóor na ko ne dee am na noonu la ko wóore ne aljanna am na noonu la ko wóore ne safara am na noonu la ko wóore ne xisaab am na misaan am na xawdu am na noonu la ko wóore amu ci benn sikki sàkk kon loolu da koy ñaax mu jëf bu rombee ci alyaqin rek mu ngi jëm ci alqabul da koy nangu lu laa ilaha illallah wax rek bu dee jëf mu nga ca bu dee tere bana ko wal inqiyaadu foo ko fekk day wommatu lu mu bëgg dara tey ñu ne ko lii lu haram la pare na ca lu mu lu mu bañ dara ñu ne ko lii lu war la mu nga ca biir foo ko fekk daal moom mu ngi wommatu rek jëm ci borom bi subhanahu wa taala mooy ñeent yi juróomeel bi mooy ak sidq foo ko fekk day dëggu lum la wax rek xamal loolaa am bu la nee waaw waaw la bu la nee déet déet la day dëggu foo ko fekk day dëggu gannaaw dëggu ba ixlaas lu mu def yàllaa tax bëggul sax nga gis ko bëggul sax nga nettali ko yoonam nekkul ci waxu waxkat yoonam nekkul ci taggub taggkat yoonam nekkul ci xasub xaskat foo ko fekk moom ixlaas ngir yàlla dong la foo ko fekk itam almahabba moom la mu jiita rek mooy cofeel bëgg yàlla bëgg yonent ba bëgg ku leen bëgg noonoo ku leen noonoo jeex na moom looloy problème am de waaye seetul mbokk nga seetul ñoo bokk réew seetul ñoo bokk service seetul moom daal la mu seet mbaa bëgg na yàlla ak yonentam waaw bëgg na ko jeex na bañ na yàlla ak yonentam naam bëgguma ko sama yoon ci moom bëgguma daraam jeex na juróom ñaar yii bu matee ci xolub doomu aadama rek mooy nga ci buumu yàlla wa billahi alaykum juróom ñaar yi bu nekkoon ci ñun ñëpp ba problème dina am dina néew de problème wallahi dina néew ndaxte nit ki bu la xasee nga ne ko jéggal naa la jeex na nit ki bu la bañee jox nga ne ko am bu la rombee nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ana problème fu muy amee problème du am waaye gannaaw nag juróom-ñaari càq yii ku ci nekk day am càq boppam yu wuuteg yooyu wala mu am delluwaayu boppam bu wuuteg boobu wala mu am royuwaayu boppam bu wuuteg boobu wala muy woote pour yëkkati leneen suufel leneen ah fii nag la jafe-jafe yi di ñëw kon jafe-jafe bi ci ñun la waaye nekkul ci diinal islaam yi de abadan ci ñun la nekk ci ñun kon loolu bu ñu ko jàppee gëm ko rek benn jafe-jafe du am kon la mu woote woon mooy tawhiid mooy sellal borom bi subhaanahu wa taala mu ne tawhiid boobu nag la koy dëgëral mooy al ibaadatu mooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala jaamu boobu la firi mu ne wa jamiu ma yuhibbuhu allahu wa yardah ak lépp lu yàlla sopp te di ko bégal mu ne loolu la yonent bi indi lépp lu yàlla sopp te di bégal moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu day mooy la yonent ba indi woon ci jëmelu ci lu baax amma lu bon la mu ña tere nag wa sarru alladi xazzara minhu kafaan ba mooy ashirk gannaaw jàmm jum ñi woowee mooy ñu wéetal yàlla kon musiba ak fitna bim ñu tere mooy bokkaale ne moom loolu la ñu tere nag mooy bokkaale boobu nag mu ne bokkaale boobu mooy wa jamiu ma yakrahuhu llahu wa yabaa lépp lu yàlla sib te bañ ko mu ne loolu lañu dal di xupp mu ne nañ ko tere mu ne kooku nag na la wóor ne yàlla yónni na ko ila naasi kaafa ci mboole seen doomu aadama yi ci mboole seen amul kenn ku des waaye nag yonantu boobu nit ñi ñaari xaaj lañu ummatul ijaaba wa ummatu daawa ñi nangu dal di wuyu si ak ñi lànk des ci biti ñu tudd ay yéeféer waaye ñépp moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo yónni ci ñoom borom bi subhaanahu wa taala won ñu ne yow mii dey yónni naa la ci mboole seen mboole seen laa la yónni du ma sàmba du ma demba du olof du pulaar du seereer mboole seen bépp doomu aadama rek yonent bi yonent la jëm ci yow ba mu jottalee ñi mu bokkaloon jamono mu dal di leen ñaax mu ne ñu fal yuballir ashaahid alxaani ba ñu seedee keroog ci xijjatul wida loolu la mu ne ñi fekkee nañu ko jot li ñi fekkeewul sahabatul kiram seen jaan wàcc na sàmmanal ñu qur'an sàmmal ñu sunna lépp lu yonent bi waxoon ñu seggu ko tënku ko ba mu yegg ci ñun muy mu lu mucc ayib waaye ba mu yeggee ci suñ loxo yi nag fa la ñu yaacaaral ñun ba mu dal di réer ñu dal di mooy ci ay bida jàpp ci gént naa jàpp ci yaakaar naa jàpp ne diw xutbu la diw day xawsu la diw diw diw diw ñu fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàtte alquranul karim kon ñun itam am nañu benn part responsabilité mooy lii dañ ko war a sàmm mu dal di yeggi lii dañ ko war a sàmm mu dal di yeggi ñaam lu mel ni ñun nga xam ne borom bi subhanahu wa taala nattoo nañu wax ñaari mbir benn bi mooy iqamatul hujja dàqal borom bi subhanahu wa taala lay ci yéen bu ñu taxawee bés penc nga ne yàlla mu ne waaw déggoo woon kon dàqal yàlla lay ci yéen dootu leen am benn lay ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ndaxte yegg na ñaareel bi dàqal suñu bopp mbugal ndaxte yonent bi ne ki ñuy njëkk a mbugal bés penc mooy borom xam-xam ñu wër ko naan ko waaw yow day yaa ñu doon digal mu ne waaw dama leen doon digal te duma ko def di leen tere di ko def mu ne ak keneen ki ñuy mbugal mooy ku borom bi subhana wa taala baaxee ba jox la alquran nga dal di nelew yaa caaral doo ci naafila doo ci waaraate kooku liñ koy mbugalee mooy day tëdd ñu jël benn doj toj bopp bi doj bi wadd ñu dem jëliwaat doj bi balaa ñu ñëwaat bopp bi melaat ni mu meloon ñu dal di ko tojaat bu faatoo noonu lay dundee ci xayaatul barzaqiya ba bés pénc mu soog a dajeeg nag ban mbugal la ko borom bi subhana wa taala di sédd kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax de waaye bu ñu mbugalee ki xam nag waaw ki xamul nag ay naam foofu jar na xelaat jar na def benn point interrogation ak benn point d' exclamation jar na ko de ki xam buñ ko mbugalee waaw ki xamul nag te léeg-léeg nga dégg loo xam ne lu doy waar alhamdulillah ba ma borom bi subhanahu wa taala defee ko xamul ndaxte noppalu na la hawla wala quwata illa billah alkande ñëw na bés bu ne ñu dégg loolu bés bu ne ñu dégg loolu imma ñu dégg ko ci làmmeñ wala ñu dégg ko ci jëf waaw ku xamul te xam luwul est ce que santoo yow ba nga xamul yow wóor na la ne xamoo te doo xam lu mukk kon ñàkkaa xam boobu dalaa neex mais bu la neexu doon kay yaa axi foog nga xam lu te léegi borom bi subhanahu wa taala wàccee na ay lay de kenn du dem ci kanam borom bi amub lay jàkka yaa ngi xamle rajo yaa ngi xamle télévision yaa ngi xamle téléphone yaa ngi xamle te am mandaari boo xam ne xamoo dara nga yaakaar ne boo demee borom subhanahu wa taala dina la yërëm mais fooy jaar yow yaa lànk di bu fekkoon ne bu nit waxee doo dégg nga ne borom bi ah yaa ma tegoon ab tëx de mënumaa jàng xarfu yi borom bi ne wallahi man maa la ko tegoon wala amoo ay bët boog ah man day boo gisee làmmeñ bi léegi-léegi day nit ñi dañuy wax rek ma koy takk parce que du ma gis mënuma mu ne wallahi man day maa la ko tegoon wala ab làmmeñ bu luu ma ne ah bëggoon naa de waaye nu may jàngee làmmeñ bi mu ne wallahi maa la ko teg waaye yii yépp nag bu amul waaw boo demee nag ban lay ngay jëm ci borom bi subhanahu wa taala ban lay kon nit ki na xelaat loolu bu baax a baax de te nañu xelaat jàpp xam-xam bu fës bu wér aljanna ko xamul bokkoo ci de dañ ko xam bu baax a baax ndaxte borom bi confirmé na confirmé waat mu ne ñu innama yaxsa allaha min ibadihi l ulama ñii ragal yàlla mooy ñi xam de te ku amul iman nag doo dem aljanna kon nag foo koy xamee foo koy jëlee bu xel yi dem nag ci xam mooy xam-xamu yépp déedéet mooy foog nga xam nooy jàppee nooy jullee nooy wooree nooy génnee asaka nooy takkee sëy nooy géntee nooy céetalee nooy déjee mais yooyu laa sàkka fokk nga dal di ko xam lépp mu dal di leer ci sa xanam lii lu dagan la lii lu xaraam la lii sunna la lii bidaa la jënd ak njaay lii day dagan na cib njaay lii day xaraam na cib njaay mais kooku laa sàkka mais yooyu yépp na nga dal di ko réeree di dajale rek nga yaakaar na da ngay texe mais fooy texe ndax yéen déggu leen woon résiste commerce bi Umar ibnul Xattaab imposé woon ci marché Madina daa am lu mu fa imposé woon boo ñëwee rek moom daa teg ay laajam ay question am waaw atteb njënd ak njaay moom mbaa leer na ci sa kanam ma ne ko ah waaw waaw loolu de moom macha allah leer na de mu ne marché baa ngoog yaa moom amul duwaan amul juuti amul dara yu daggal la ab place yu ne yaa moom demal mbaa leer na ci sa kanam nga ne déet mu ne yow doo am place ci suñu marché yi de ñu marché yi mu ne waaw waaw moo fi place demal boo fi buggee place da nga koy jàngi ba xam ko dal di ñëw kon yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon texte yooyu yépp mooy li nga xam ne mooy diine kon kooku borom bi subhanahu wa taala ba'athahu llahu ila nnaasi kaafa mu ne yàlla yónni na ko ci mboole seen doomu aadama yi waftarada allahu taatahu ala jamii saqalayni aljin wal ins borom bi faratal na nag nañ ko dégg topp mboole seen doomu aadama yak mboole seen jinne yi lañ lay natt daal mbaa déggaloon nga yonent bi topp ko waaw texe nga mbaa déggaloon nga ko topp ko ah déedéet kat inna ata inna ata'na saadatana wa kubaraana fa adalluna tariq ah déet ñun kat dañu amoon ay kilifa de ñooñu la ñu toppoon kat parce que ñoo doon wax ñuy dégg ñooñu la ñu toppoon de ah kon nag toroxtaandi ñëw na yow ci sa bopp nag yaa koy wax yàlla ñun toppoon nañu kilifa ya de la ñu toppoon ñu réeral ñu ndaxte dem nga gis ne li nga dundoon du lii te ki la réeral mooy kan ki nga déggoon ki nga toppoon nga dal di ko joqar bi nga ne yow mii la mu ne du man de abadan du man nga ne ko déet wallahi makrul layli wan nahaar mu ne wallahi pexe ya ngeen doon lal guddeeg bëccëg aljanna la ñu bëggoon nga ne boo ma joxee am nga aljanna nu may def du ma la jox ma ne la julli wàcc na la lépp wàcc na la xalaat jox ma rek nga am aljanna te aljanna lay wut dëgg dëgg nag yenn yi dafa métti aj métti na maanaa koor métti na génne asaka métti na def mbir yooyu yëpp julli juróomi waxtu yooyu yëpp boo dëgërul métti na waaye gis na koo xam ne boo ko joxee rek mu ne la indi yeex na ah kon loolu dafa xewoon ci diine chrétien ñu koy tuddee chakkul gufraan da ngay bind xaalis ngay bind rek ñu bindal la benn sec som bi daa am nu muy toll som bi bu am nu muy toll ñu ne jéggal nañ la bàkkaar yi nga defoon seg bi daa am nu muy toll ñu ne jéggal nañ la yi nga defoon ak yi nga nar a def nga dal di ko dóor ci sa poos loolu moo indi ñu teqale ko beneen xaaj bi nga xam ne mooy kanisa al almaniya Martin Luther looloo ko tax mu génn mooy protestant yi ñu ne gaa yi paple yi lii fen la lii amul de moo taxoon ñoom ñu dal di càq muy beneen càq boo xam ne ci càqub chrétien la yaakaar naa yegg si na ci ñun sakkul kufraan dafa ñëw ci ñun nangam boo ko defee rek texe nga ah nangam boo ko defee texe nga ah yaa axi te texe laa bëgg dugg aljanna laa bëgg te sama xam-xam foofu la toll nu may def dama la koy jox ngir ma texe kon nag loolu moo taxoon ba ñu fa yeggee ñu ne ah musiba am na moo tax borom bi ne fii fi ñuy taxawee mu ne qul yaa ayuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamian mu ne yonent bi wax ko de ee mboole seen doomu aadama yi man yonent laa bu jëm ci yéen mboole seen kon kooku lañu la wax nag nanga ko topp boo ko bàyyee topp keneen nag ah lu ñëw keroog yawa de seytaane ci boppam foofu lay mujj ak yow lan la lay wax wala taluumuuni walumu anfusakum ah bu leen ma yedd kat yedd leen seen bopp yàlla woo na leen ma woo leen ngeen bañ a wuy yàlla wuyu ma weddinaa sax mosu leen maa wuyu weddinaa mosu leen maa wuyu kon boo bu la wóoree foofu ngay mujjeeg seytaane fi ngay mujjeeg kilifa itam mooy borom bi subhanahu wa taala arina allazayni adallaana waaw borom bi subhanahu wa taala won ma ñaar ñi ma réeral waaw borom bi ne bu ma la ko wonee loo koy def mu ne ajaluhuma tahta aqdaamina mu ne ngir ñu def leen ci suñu ron tànk yi ci biir safara ñu joggi leen ñu xam ne dëgg-dëgg ñii ñooñu toroxal kon nañu gën a jiitu ci torox taande gi kon nag lay musal doomu aadama mooy la mu wax mooy nga xam diine ji ci tegtal yal nañu ko borom bi subhanahu wa taala xamal ci tegtal allahuma arina alxaqa xaqan wa arzuqna husna ittibaa wa arina albatila batilan wa arzuqna husna ijtinaba واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله بقي borom bi subhanahu wa taala ki sàkk te yeeyoo jaamu moo faratal xamlu kon ñu ngi koy ñaan yal nañu gindi jëmeñu ci boppam kon ñu ngi woon ci al usul athalaatha ci nooy wéralee sa pas-pas demoon nañu ba ñëw ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama aki jaar jaaram ñu jaaroon ci hijra ak ci sharia ni mu wàccee te itam nag ñuy tàmbalee ci li manta ñàkk ñeel doomu aadama mooy génn aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñëw na aduna borom bi subhaanahu wa taala togg ko jott li jaam yi li borom bi bëgg ak la mu bañ mu jagleel ko lu toll ci fukki fan ngir mu jott li li aju ci pas-pas gannaaw ga nag la dem wuyu ji borom bi subhaanahu wa taala salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dem gi mu dem nag mu allif bi neñu wonewul demub diine ndax la doon sax sax na ci ay tegtal yu jóge ci alquraanul karim ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu neñu wa diinuhu baaqin wa haada diinuhu mu ne ñu doxalinu borom bi subhanahu wa taala bi ñuy tuddee diine te yonent bi samp ko fi mu ne loolu moom fi la des te lii mooy diineem lii nag mu ngi jëm ci pas-pas boobu nga xam ne jàngal nañu ko ba ñu tàmbalee téere bi ak fi ñu toll mu ne ñu wa haada lii ma leen wax nag nga xam ne yonent bi jàpp na ci fukki at mu ne loolooy diineem ji kon bu fekkee ne loolu mooy diine ji nga xam ne ku ko bàyyi dootoo tuddub jullit ku ci moy yow yaa tudd jullit kon fokk mu yóbbu aqidatan wa axlaaqan wa muamalatan fokk mu yóbbu ñetti xaaj yooyu pas-pas jikko jëflante boo seete loolu mooy peeg doxalin bi ñuy jox melog ku gëm wala naafeq mbaa yéeféer benn ci melo yi moo koy gën di génnee nga jëflanteeg moom rek nga yëg ne lii ki ma jëflanteeg daal ku am melog imaan du jëflante nii wala nga dégg ay waxam mbaa nga gis ay jëfam nga xam ne ku am jikkoog imaan du jëflante nii wala nga gis ay waxam nga dégg ay waxam mbaa nga gis ay jëfam nga ne ku am imaan du mel nii kon ci yooyu yépp nag lañu wax ne mooy diine ji boole ko nag ak feddili laa xayra illaa maa dalla al ummata alayhi ولا شر إلا ما حذر الأمة عنه أو منه mu ne nga gëm nag ngëm bu dëgër ne nag yiw ak li ñuy wax jàmm ak li ñuy wax texe nekkul lu dul li yonent boobu joxoñal xeet wi lépp lu mu ne nii la rek rakka yi boo ko defee am nga nangam moo xam yool laay nekk wala njéggalum bàkkaar bés bii boo ko wooree am nga nangam moo xam daraja lay doon wala njéggulum bàkkaar mu ne na nga yëg ne nag jàmm fala ne mu ne itam lu bon lu yées te xewadi amul lu dul lu mu wax xeet wi moytu leen ko te lam ñu moytuloo dëñul di ñu ko moytuloo mooy al ixdaasu fi diin mooy ñu dal di sos ci lii nga xam ne mooy diine dañul di ñu ko moytuloo kon loolu bu ñu demee ba ñu tollu cib aada ak sos ne mooy guddi gañ koy màggalee loolu dina jar ñu taxaw seet daa bokk ca la mu digle walla daa bokk ca la mu moytuloo xeet wi bu dee ca la mu digle yiw bu baree nga ca bu ñu xamul takkam nu mu toll bu dee ca la mu tere fitna bu baree nga ca bu ñu xamul takkam fu mu toll waaye gannaaw ba ñu seetantalee seet nag fekk nañu ne daa bokk ca la mu tere ne warta am du ndigal bu jóge ci qur'aanul karim di ko digle du ndigal bu jóge ci sunna di ko digle waaye ñaar yi yépp bokk na am di ko tere ñaar yi yépp dafa bokk am di tere lu mel ni bu dee ci anamu yëkkati darajaam moom waxoon nañu ne laa tasruuni kama atarati nasaara ibna maryam mu ne ngellawaay bu leen ma tagg taggub jéggi dayo bi nga xam ne nasaara chrétien yi defoon nañ ko isa bnu maryam te bu ñu dajalee ñaari aaya ki waxin dinañ gis mbir mi xaw a méngoo mooy nasaara tagg bu ne lañu xelaat gisuñu tagg bu méngoo ñu ne ah kon day benn tagg rek lañu gis ne boobu lañ ko mun a tàggee mu méngoo kon mooy doomu yàlla taala allahu amma yasifuuna uluwan kabira yahuud itam jàpp ne li ñu mun a tagg usayru daal mooy doomale ko yàlla ñoom itam nag gannaaw dëkkandoo bu yàgg ak lënkaloo daa am lu muy indi ñu ne gannaaw màggal nañ ñii seen yonantu kon kay suñu bos awla moo gën a yeyoo ñu màggal ko kon ñoom itam ñu ne du doomu yàlla waaye leerub yàlla lañ ko sàkkee du doomam waaye leeram la te leeru borom bi subhanahu wa taala xam nañ ne azali mook borom bi subhanahu wa taala ñoo fi nekkandoo te duñ fi jóge te mosuñu fi jóge kon ci wax yooyu lañuy gis ne bokk na ca la kooka mujj a wax di yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam muy xuppaate ak ñaan xuppaate bi mooy lan laana allahu alyahud wannasara ittaxaduu qubura anbiyaihim masajid yuhaddiru amma sana'u bokk na ca la mu mujj a wax ci dundam mu ne yàlla rëbb na lii di yahuud ak nasaara ndaxte bàmmeeli seen yonent yee yépp day soppi nañu ko ay jaamukaayu yàlla maa ngi leen di moytuloo lañu def sori leen ko kooku mooy xupp bi ñaan bi allahumma la taj'al qabri iida allahumma la taj'al qabri iida yow borom bi subhanahu wa taala maa ngi lay ñaan sama bàmmeel bii bul ko def dajikaay ak xawaarekaay ba mu soppeeku place bu ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala léegi nag ñu seet mbir mi kon naka la mel mooy boo ci waxee ñu ne bañ yonent bi la boo ci àndee wuute nga ak ndigalub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboole seenu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne bid'a la loolu mu amul kenn ku ñemee taxaw ne du bid'a ndaxte lu ëpp ñetti téeméeri at paase na kenn xamu ko te la ko sos mooy politique te politique bi ko lal itam mooy ashia ci dawlal fatimiya ci masra siit yi ñoo ko njëkk a xelaat ngir dëgëral seeni politique ngir dajale doomu aadama yi am fu ñu làqu ak ñoom ndaxte ñoom daa bokk ci seen politique ñuy jëm ci aalul bayt këpp koo xam ne mooy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu làqu ci seen gannaaw te am na kuréel bu dem sax ba def ali radiallahu anhu ne mooy yàlla ni ko nasaara defee ci isa bnu maryam am nañu dem bene yonent bi jibril ali lañ ko waxoon mu dem jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la tuumal mais loolu mooy tuumal yàlla ci boppam kon ci lii nag la gàmmo sosoo gannaaw amul tegtal nag lu dul ne yonent bi yeeyoo nañu màggal ko waaye ban façon màggal moo tax da ngay gis ne benn xadis lañuy laxasu hadis boobu mooy laajoon nañ ko moom sallallahu alayhi wa sallam lan mooy hikma mooy xereñ bi nekk ci yaa ngi woor altine mu ne ko bés booba laa juddu bésub altine laa juddu bésub alxemes itam de ko doon woor laajoon nañ ko ci beneen laaj it lu tax fale moom altine dong la mu tontu ne ci la juddu bi itam ñu ne ko waaw altine ak alxemes gis nañ muy sunna nga koy woor mu ne waaw ndaxte dañuy gaaral jëfub jaam yi ci borom bi subhaanahu wa taala béppub altine ak béppub alxemes mu xool ko jéggal la muy jéggale nangu la muy nangu delloo la muy delloo lu dul ñaari nit ñu réeroo be ñu tongoo duñu waxante ñooñu moom borom bi subhanahu wa taala day wax dahuma hatta yastaliha ñooñu moom seen jëf teg ko fale be ñu rafetoo ma soog a xool la ma cay nangu ak la ma cay jéggal ak la ma cay delloo mu ne nag man damaa bëgg bu ñu yëkkatee samay jëf jëm ca borom ba subhanahu wa taala mu koy xool fekk dajeeg maa ngi def jaamu yàlla bu màgg bu tudd koor kon loolu itam sabab la maa ngi woor altine bu ne maa ngi woor alxames bu ne waaw ci la juddu woon ci altine naam kon ngir tontu loolu aka yomb ci altine la juddu woon waaw kon altine boobu dañ ko war a màggal ngir ne moom juddu na ci mu koy màggalal boppam waaw kon màggal boobu ibaada lay doon mooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala bu ñu nee naam kon jaamu yàlla du dagan lu dul na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon kon altine bu ne nañu woor mu dal di jeex altine mu ne kon na nga woor mu dëppoo ak sunna te yonent bi mosul wone ne maa ngi màggal bés ba ma juddu lool ñu ngi ko jëlee ci an nasara loolu ci nasara la jóge dugg si ci jullit yi mooy li ñuy tuddee anniversaire ad diinu minhu bari diine moom sori na ci lool d'accord ci altine boobu la juddu ñu ngi koy màggal kon nañu fexe bés bu ne na nekk altine boobu semaine bu ne nañ ko màggal ci altine waaye léeg-léeg ñu màggal ko ci dimanche léeg-léeg ñu màggal ko ci dimanche kon tey jii ñoom ñu ngi koy màggal ci guddib talaata kon altine bokkatul kon loolu itam ñu daldi ci bàyyi xel bu baax a baax ay tegtal yu bari rot si na ne daje bi bid'a la daje ne yaa ngi màggal yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab bés ci def ci saddu rihaal ne dangay tukki dem feneen ñépp moom deppoo nañ ne bidaa la waaye léegi bidaa bii nag daa am ñu ne bidaa ñaari xaaj la xasana ak sayya bu baax ak bu safaan ba kon bu baax beeg bu safaan bi am na boroom xam-xam yu bari yu ci rot si yu ci indi ay wax lu mel ni shafai imam shafai rahimahullah moom xaaj na bid'a ñaari xaaj bid'atun xasanatun wa bid'atun sayya bidaa bu baax ak bidaa bu baaxul waaye boroom xam-xam yi ba ñu seetee la mu tuddee bidaa bu baax ak la mu tuddee bid'a bu bon boo ko gisee mooy li am tegtal li am tegtal cëslaay bu leer ñu ko doon jëf ba ko daldi ci delluwaat moom loolu la tuddee bid'a ci wàllu luga te bu ñu seetee umar ibnul xataab loolu la tuddee woon bid'a ci wàllu luga ndaxte tegtal biñ koy joxe mooy naafila mooy julli ci weeru koor ñu daje ci benn imaam ñuy joxe tegtal ci bid'a xasana yépp loolu la ñuy joxe ñu ne gannaaw boobu sax na rek kon mawlid awla waaye foofu qiyaas du fa mun a wér ndaxte umar ibnul xataab dafa dugg si ci jàkka ji gis ay kuréel kii di julli fee kii di julli fee kii di julli fee kii di julli fee ku nekk di jàng alquran coow bi bari lool waaw mu ne waaw ñii moom teema delloo leen rek tànnal leen benn imaam rek ñoom ñépp ñu wommatu ci gannaaw imaam boobu mu nekk lu ñu nose mu ne bàyyil ma laaj sahabatul kiram mu laaj sahabatul kiram ñépp dal di rafetlu loola mu daldi leen tànnal benn imaam ñu daldi ñoom ñépp nag tënku ci gannaaw imaam boobu di ubay ibnu kaab ba ñu kàbbaree nag moom umar ibnul xataab daldi dugg si xool mboolo mi ni mu dalee benn imaam di jàng ñuy settantala aaya yi mu ne naimatun bid'atu haadihi ne ah ndaw bidaa bu rafet borom xam-xam yi ne bid'a bi mu fa tudd mooy lugal arabiya mooy ci làmmeñub arab waaye boo demee ci sharia du bid'a ndaxte yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon yéeféer yi maa kuntu bid'am min arrusul ne ah man day du man man la ñu njëkk a yónni ñu delluwaat ci waxu umar ibnul xataab radiallahu an naka lay tuddee bid'a lu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jëfee yonentu bi moo njëkk a jëfee naafila génn di naafi la ñu ñëw gannaawam mu xumb lool ca ëllëg sa saxaaba yi ne ñeneen ñi yéen day tarde ngeen démb yonent bi jiite nañu fii maasha allah jàkka ji dal di fees dell